jërë ngeen jëf mbokki internet suñu ak acti tv ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seeni seen wàccuwaay ñu àddu ci xibaar ñel nag mbir mu yees ci faatu ki nga xam ne mooy Aziz Dabala ak Waly Gano ganaaw bi nga xamante ni dañ leen faatu foofulee ci Pikine Technopole bu ñu sukkandikoo ci journal bi di Les Échos mu ngay xam nag ki lee di Nabou Leye mi nga xamante ni rek daal dinañ koy impliqué ci faatu xaritam mi lee di Aziz Dabala mi nga xamante ni jamono ji lee mu ngi ci loxoy yoon ci noonu itamit ñu daal di koy placé sous mandat de dépôt moom Nabou Leye nag ay avocat ma jamono jile nag dañ nañoo xam leen dinañu daal di déposé de liberté provisoire boo xamante ni rek dañ nañoo xam leen ni dinañ ko daal di introduite ci fan ñu dégmal gannaaw bi nga xamante ni yooyu les avocats dañ nañoo xam leen ni kon mënuñoo xaar juge d'instruction mi nga xamante ni moo jël en charge boobu dossier ba tax nag journal bi di les échos ñoo ngay xam leen kon ay avocat Nabou Naboulaye ñoom nag dañ nañoo xam leen ni rek kile di Naboulaye bokkul nag ci boobule double meurtre ba tax nag kon ñoo ngay xam leen dinañu daal di déposer ab groupe de liberté provisoire boo xamante ni rek fan yi ñu dégmal dinañ ko daal di déposer bu ñu sukkandikoo ci journal bile di Les Échos leneen li jëm ci mbirum xibaar bokk na ci nag wàllum scandale bi nga xamante ni ñu ngi koy tudd jamono jile foofu lee ci observatoire de la qualité des services financiers bokk si ki nga xam ne mooy Habib Diallo secrétaire exécutif bu observatoire de la qualité des services financiers ci naka ni ak ki nga xamante ni daxa Diallo ak yeneen individu yoo xamante ni rek dañ nañoo bokk ci boobule scandale bu ñu sukkandikoo ci journal bi lee di Libération ñu ngay xam ne nag ki lee di Daha Diallo gannaaw bi nga xamante ni nag dañ nay janook ak enquêteurs yi moom nag dañ nay xam rekk jël na lu toll ak vingt millions daal di koy jox ki nga xam ne mooy Habib Ndaw ngir nag mu daal di koy nopp pilo waaye nag ki lee di Habib Ndaw moom nag biñ ko laajee dafa wax ne rek cinq millions kese la ko daal di jox waaye nag dañ ne xam leen rek moom mi def ko daal di delloo ki lee di Daxa Diallo ki noonee ba tey moom a Daxa Diallo gannaaw bi nga xam ne waa inspection générale financier bi ñu ñëwee nag doon contrôler moom nag dafa wax ne rek jël nag informaticien bi di Alphonse Diomo Diakhane ngir nag mu daal di saboter centrale ordinateur bi ngir nag ñu bañ a benn trace ni rek dañ lañ leen incriminé jëm nag ci mbir moomee bokk na ci ci le fournisseur di Pape Souley Sow ak ki nga xam ne mooy la gérante de l' entreprise Takusan bu Diaw ñooñu nag ñu jàpp ni dañ doon defar ay faux facture ba tax nag ñu daaj leen teg loxo ñu xam li nag Habib Ndaw a Daha Diallo Alphonse Diombo Diakane Pape Souley Sow ak ki di Seynabou Diaw jamono ji leen nag ñu ngi ci loxo de la division des investigations criminelles ñu leen di toppee pour détournement de deniers publics association corruption de malfaiteurs et corruption bu ñu sukkandikoo ci journal bi di libération